Écoute sur RFM. xalaas bu amul RFM RFM du saf dara xalaas mooy seule émission bi ëpp ay fans technicien yeeg. Euh, ñi réaliser euh, émission beeg ñëppay ñëw fii waxtaan bañ dàq leen pour émission bi day bëgg a commencer macha allah salaamaaleykum ami euh, auditeur ak internautes yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel seen émission des faits divers xalaas ànd ceeg Mouhamadou njaay sama waa ji <laughs> yi ñu fi war a wax yëpp dafa bari trop <laughs> xam nga tey <laughs> déjà man di wax ci sa vie de ay risque la Ndiaye maa ngi lay siyaar ñuy delloo ziar bu baax a baax Ababacar nitu sutura kii <laughs> bari nga sutura baax nga màndu nga yal la yàlla fay maa ngi maa ngi maa ngi nuyu passe partout naa mhm. ngi nuyu waa Sénégal mais mhm. nag bu bu ngeen toogee di casse heure ma lijjanti ba léegi ñuy commencé neuf heures vingt dëgg la nañ de voilà da maa war a nag jaajëfal nag ñun kay du ñun rek ah. ak euh, auditeurs yi ak internautes yi ah, léegi xalaas léegi neuf heures lay commencé c'est grace à toi parce que ñu koy ñun tamit dañoo dem ba mer. ne la nga jël sa ay. responsabilité boo doonee kilifa ñu. jiital la jël mbir daal teg ci kanam. dangay ngay dox euh, doxinu njiit dafa yàgg nag dañ nga ko waree def dafa yàgg mais comme euh, alhamdulilah daal. dañoo newoon ci étude de faisabilité yi. pass Ababacar. noo def maa ngi lay baax a baax. mbaa lépp jàmm. sant bu waax mu ngi dox maa ngi ziar sama waaj Ndiaye di nuyu yi ak internet di ziar ñëpp. nañ doxal ci partenaires yi mais dafa mel ni tam bopp tuuti laa koy dégg. yow mi waaw wax wax ko laay. ah laay kay li ci laay na yokk loolu. àcc nañ dem ci partenaire yi. nit mënul dër casque dër day xaw a doy waar. <laughs> kay sama wax sama wax yi yéex ba nag sama dégg du baax. sa dégg-dégg du baax tegul fenn. xel nangu ko partenaire da nga koo sànq sama xel dem ci Mion Mion di téléphone Android boo xamante ne ji Aba. dama koy conseil waa Sénégal ñi bëgg mm. téléphone bu baax ñi bëgg téléphone bu garanti ñi bëgg téléphone bu rafet ñi bëgg téléphone bu mën a yàgg nañu dem ci téléphone million yi njëg gi yomb na téléphone bi baax na ay téléphone yoo xamante ne ji vingt-trois mille lay jar mooy million Q onze bi am na beneen bu ñu naan Mion Q10 boobu it 23 lay jar L13 plus bi toll ci 35000 baax lool lu ngeen bëgg ci téléphone rek am na am na Mion Hot 2 nga xamante ne ji 38000 la ñu koy jar la ñu koy jaayee kon jamono ji nag téléphone Mion yi dañoo nekk ci promotion ci revendeur téléphone yi. Hmm. ñu am tablette Mion ngir euh, ñi nga xamante ne ji kon dañu bëgg ay tablettes yu baax ñi bëgg ay tablettes yu efficace ay tablettes yu garantie tablette Mion yi lu ci mel ni Aerotab bi wala Mi Pad bi. yomb ba dee soixante mille ba ci des soixante dix mille Mion ay téléphone am ak ay tablette am bu la ko jaayee am nga garantie douze mois un an téléphone wala mi Mion am na service après vente bu ñu indi ci réew mi nekk Grand Yoff ngir lu leen jaaxal ci téléphone bi ñu lijjanti leen ko partenaire beneen bu ñuy àndal ci xalaas moo di établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gaamu vite fait bu yéeme bi vite fait gaam la ne cuuraayu bant la ñu njëkk indi mu lay dàqal yoo di la bàyyil xet gu neex. ñu teg ci pompe boo xamante ne ji foo ko piis yoo du fa jege mbuut waxi nopp weñ noonu ñu indi nag lii di crème épilatoire vite fait yamuñu ca dañu indi mais ngir gunge leen ko ci sedd bi am na euh, lipo boo xamante ne jii king la tudd ngir tuñuy xar yeeg yu ni mel yooyu yëpp dañ ko fee bëgg a jële mm. savon king aloe vera bi mi ngi fi anti acné bi mu ngi fi lépp ñoom waa vite fait ñoo ko indi di waaj a indi nag briquet ak allume gaz vite fait seen numéro téléphone établissement waa kër Serigne Touba 806 15 19 ñu àndaat ak beneen partenaire ci xalaas moo di waa Optique Vision Plus Sénégal ñoom moom jamono ji euh, ni ko ni ko ni ñu koy waxee tànn sa bu la neex la ndax promotion bu baax bu yéeme bu mag bi nga xam ne ñi ngi ci jamono ji promotion faite fin d'année Optic Vision Plus Sénégal nee na lu ngeen jënd ci boutique yi Optic Vision Plus Sénégal moo xam lunette la lunette fashion lunette médicale lunette ngir retraité yi lunette ngir étudiants yi lu mu ci mën di doon li muy yomb yomb dafa am prix promotionnel bu ci am 20 pour cent 10 pour cent 40 pour cent loolu la indi ci boutique yëpp nag muy showroom bi nekk ci VDN bi muy boutique bi nekk Kër Mbay faal Mbour Touba Saint-Louis wala fi nga xamante ne ji moo di Louga ngeen mën a woowaa Optique Vision Plus Sénégal ngir ay euh, renseignement yu gën a yaatu ci 33 821 54 57 33 821 54 57 Ababacar. ah ci am na solo ñu dem euh, ci xalaas bi njëkk bu fekkee express amul. yow awa express yow. ah excès gudde. am na am na ko may laaj ndax téléphone yu téléphone double piste la. Hmm. Euh, ñaari carte SIM daal lay jël. <laughs> da ngay éviter double grand ay dara double puce dañ koy jëlee ci réew mi téléphone bi ñaari carte sim. abaa ñaari carte sim lay eh. jël. <laughs> abaa uh-huh. nga ne amoo express yow. ah excès gudde. li ñu toog fii yëpp waxtaanee ko fii yëpp. vie privée ay vie privée nit fi ne. maay jégalu bu dee xalaas gi xalaas gi ma yaakaar ni nit mooy ñëw ne la ñi ngi may nii ma yaakaar ay nit mooy ñëw ne damaa bëgg nga xalaas ma nga xalaas ko waaw waaw tey avant ngay xalaas nit di nga ko waxtaan ak moom ne ko ndax mën doo ko régler ah, ci sutura ak yooyu xalaas daa weesu nag nga toog ci plateau xalaas di wax waaw mais non mais dañ doon waxtaan te lii mu wax nii moom man am na yu ma ci wax yow am na yoo ci wax ah mës ngaa gis ku toog ci der di jëw yàpp ah, amul ah yow avant seex yi di judd am na yoo wax ah te yooyu yëpp mënuñu koo toog fii di ko fi wax. am na. <laughs> waaw waaw yow topp naa la ba Maroc. <laughs> waaw waaw. am na Ndiaye Ndiaye waa waa waa léegi. léegi naa la ba Casablanca. waa nañ bàyyi léegi nañ bàyyi. waa <laughs> ñu bàyyante waaw nañ bàyyi waaw nañ bàyyante léegi léegi nañ bàyyi. léegi Cameroun bul fàtte ni Cameroun neexoon na lool Sénégal indi na coupe bi waaye tarkal la yeneen ndam ñëw na. nañ nañ bàyyi noonu. fekk naa la ay rapport. nañ bàyyi noonu di xaar seen vol. nga ne xanaa Sénégal mooy réew moo xam ne ku la njëkk a yeewu ñu la sànq waatal yi bëgg yàqante hmm? ay ca dafa am. yaa newoon Richard-Toll newoon nga Richard-Toll <laughs> def naa fa ñeenti at. léegi de waaye benn. yaa ngi ah, ah, ah. ne yaa ngi <laughs> tamit. waaw ayca nga ni xalaas. Euh, Ndiaye dafa am benn benn ndaw suñuy wax euh, Nene Diop mi ngi dëkk Rudis. Mhm. Rudis bi boori cosaan. Mhm. Euh, démb ba léegi ñu ngi koy woo waaye téléphone dafay sonné rek pour benn mbir la boo xamante ni daal. bu fekkente ne daal mën na jokkoo ak ñun. waaw mu ko ak ñun ci si 77 150 17 17. waaw loolu day baax nag léeg-léeg xalaas day ñëw doo ko mën a traité ndax ka ñu ciy tudd wala ka ka ki ci bokk. Hmm. day baax aussi nga am version. ñu dégg ko ah, baa mu yëg ko. Hmm. wax la ca moom la cay position. waaw ah. donc nan la tudd. nen na Diop. nen na Diop waaw. Hmm. xam naa am nañu tur nag ndax nen na moom du tur. nen na daal la ñuy wax dëkk Rudis jox nañu numéro mais démb ba léegi naa ko mais kan baax na gi euh, Aba. Mhm. dañuy continuer Ndiaye élément wu démb ba ca Padois. xam nga ñu ngi commencé woon ci benn paa bu ñuy wax Salif dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. dafa jëloon terrain benn terrain bu nekk Padois mu jaay ko benn paa bu ñuy wax Diallo. Mhm. paa Diallo jël terrain bi jaay ko benn colonel. colonel boobu nag jël terrain bi jaay ko benn famille. Mhm. famille boobu ñu am problème instant nag parce que bi ko jàlloo jëndee ci saalif jaay ko colonel bi ñoom miite ñu woon kër gi seen tur donc kër gi turu Salif la nekkoon bi ko colonel bi di jaay famille bi nag woo na Salif Salif toog fekkee jaay mi Salif moo def ak de bi ñu jënd kër gi jël seen këyit denc bi seen nijaay di tukki nag di dem bitim réew dafa jël këyit gi dénk ko sëram mais da ko séparé ak acte de bi ñee dem ay année après impôt yónnee seen kër pour ñu am ay affaire yu ñu war a fay ñu xool këyit yi gis ñu acte bi xool ni aussi dafa ñu mutation bi ñu bëggoon profité pour defaale mutation bi mais gis ñu ak demande bi donc ñu ne comme Salif ma doon ko jaayoon nañ dellu ci saalif wër ko ba gis ko pour mu defar leen benn acte de mm-hmm. bi ñu ñëwee na Salif fàtte woon na sax waxu terrain boobu mm-hmm. mu laaj leen fu mu nekk ñu ne ko Patte d'Oie mooy cité impôt domaine foofu mm-hmm. mu dem vérifier ne leen effectivement maa leen ko jaayoon mais loolu dafa yàgg léegi da ngeen ma jox cinq millions pour ma defar benn acte de vente ñooñu bañ demaat quelque temps après ñu ñëwaat ci moom encore mun leen léegi nañ leen dem ba ngeen wan ma kër gi ba ma gis ko ba pare ñu ànd ak moom wan ko kër gi mu gis ko ñu leen léegi 5 millions laa wax sax mais leen il faut ngeen jox ma 10 millions wala ñu jaay kër gi séddoo parce que kër gi dafa am valeur ci ñoom li ñu wax. te jaayoon na ko ba pare. waaw ak devant mi ngi nii ab naa la ko jox ab naa la ko jox. léegi nag Ndiaye bi ñu ñu bañee ñu xam ne acte de bi feeñul. Mhm. ñoom d'après ñoom. ci la leen Salif attaqué tribunal ne dafa am ñu ñëw occuper terrain woom. waaw ndax kii détour ma ca nekk. ma ngoog ñii amuñu dara luy prouver ne ñoom moom kër gi. léegi nag waa tribunal. léegi ana colonel bi jaayoon ci diggante bi moom. colonel baa ngi fi. Mhm. léegi nag waa tribunal joxe ndigal pour ñu génne famille boobu. fekk bi ñu bi ñuy bi ñuy pour ñu génne famille bi dañoo ñëw estimer waale bâtiment bi. à dix millions tabax nañ ko léegi. waaw ba dëkk fa à dix millions ñu ñëw génnee leen léegi bi ñu leen génnee ba pare nag. ñoom dañoo mer di dajwaat kër gi duggaat ci biir kër gi. après nag si seen seen nijaay ba demoon bitim réew jógee bitim réew ñëw nag far yàlla gis ak defante ba. mooy bi ñu doon defaloo Salif mu leen di santage. ma ngoog mu feeñ. mu feeñ ñu dellu tribunal nag ba ñu delloo tribunal jox dëgg famille bi daan Salif deux ans de prison amande ko. mooy Salif mi doon santage. ma xam fu lañ tolloon. léegi hmm. ñëw ci deuxième partie bi parce que am na lu xewaat bi Salif génne àdduna. bala ngeen ci deuxième partie bi waaw. Ah. ndax xam nga ne bari na ci réew mi ñuy dawal ay oto yoo xam ne seen tour nekkul ci carte grise bi. dëgg la ak a dëgg la loolu dafa jaro moytu ngir ñaari mbir. Mm-hmm. réew lu muy doxee am fu muy jëlee koppar yu muy fonctionner. Mm-hmm. ñu jaay la oto mu nekk sama nga dem baare carte grise bi. Mm-hmm. dem yow muté ko sa tur. la nga cay fay yooyu la réew mi di soxla. ngir di mën di dox muy benn muy hmm. devoir maanaam citoyen bu ne noonu nga war di doxee hmm. ñaareel ba mooy man su ma la jaayee oto jël sa sama carte grise bàyyi ci hmm. lu ci am man la engagé lool moo feeñ ci kër gi nañuy toppatoo suñuy këyit A a Z nag njaay nag su boobaa nag na nga waxaale ak administration xaw ma impôt domaine la xam ne ñu yor wàllu mutation bi njaay Sénégal ngay dugal mutation terrain wala kër cinq ans du génn non loolu bu yàgg ba la gis naa ay ci localité yi la. Ah. bon bëgguma sax dugg seen communication bàyyi noonu mu jàll. man sama mutation terrain Ndiaye deux ans génn. waaw am nga ba terrain ñun. ñoo am nga. déglu. bu <laughs> ma fay lu wees lay lijjanti. déglu. dem toog di xool ban solution la ñuy def ñu woo sama ndijaay bi expliqué ko cas bi ni mu demee mu ne ah bon ñun ko waaw la temps moom muy réagir xam lan la ci war a defal yooyu rek mu daal di xëy dem tribunal attaqué ñu wane ni ñun dañoo ñëw tabax ci ab terrain dëkk fa te jaayuñu ñu ñu toog ba mu yàgg ñun ñu ñu indil ñu benn kayitu IG pour dinu génne ñu nekk di ci loolu après les gars yi ñëw encadré ay mbër ak police ñu ñëw génn ñu tàjji suñu ay armoire dajji suñu ay lal génn yëpp même xale yi jigéen seen or yi fa nekkoon yooyu yëpp dañ ko sàcc daj lépp sànni ci biti ñun nag bi ñu defee loolu ñun amuñu woon avocat xamuñu ci lim ñu dugal après nag ñun bi loolu passé ci lan daggaat seen bi nga xamee ni si ni defa noonu duggaat ci biir kër gi toog léegi nag coow loolu bi mu amee directeur impôt domaine bi affaire bi àgg na ci moom après nag léegi bàyyi woon noonu ñun nag léegi sama ndijaay bi nag ñibbisi bi mu ñibbisee daal ni papier yi lépp a matoon dem armewaalam seet ay document gis acte bi daal may woo téléphone ni foo nekk fekk si ma kër ga ma ñëw fekk si ko fa léegi moo indil woon coow li ndekete man bu may jox sa ay kër yi naa bàyyi acte bi léegi acte boobu nag mi ngi nii nañ dem ñu jéem a xool nan la ñuy def ba am avocat ñu am suñu benn dëkkandoo boo xam professeur la moo jël affaire bi xool ko ak këyit yëpp daal ni léegi nañu wut avocat ñu wut avocat après jox ko affaire bi muutal ñu appel léegi bi bi ñu amee appel ñu ñu def enquête ku ñuy wax Cheikh Diop juge la boo xam mi ngi nekk huitième cabinet képp koo xamee ni sii nii sa nekk na ci dossier bi woo na la parce que ci jamono jooju parce que woowoon euh, Pa Amadou Diallo woo colonel Momar Aram Thioune woo na Matar woo na ma woo sama yaay woo sama ndijaay képp ku daal koo xam ne turam laale woon na ci dossier bi rek woo na la def ci enquête mucc ayib bi mu paree ci loolu bi ama bi dañu woowaat ma ñëw man sama ndijaay mu daal ne nag li waraloon coow li mooy yéen nee ngeen seen acte de feeñ na ñun ko effectivement mu ñu indi leen ma original bi man may naa leen trois jours ngeen indi ko léegi ci suba ga lan demee ba ñun ca lan dem jël jël acte de vente bi ñu indil ko Cheikh Diop huitième cabinet jox ko ko mu def ko ci dossier bi léegi nag bi loolu amee appel boobu continuer dem ba ñu woo ñu dina àtte bi ñuy àtte man sama bi may expliquer ñun ma demal toog sama ndiyaay expliqué ñun seen seen wax bi benn wax bi la rek ko léegi tribunal ñu ngi ko daanu ñaari ati kaso ak alamaan ko léegi nag loolee ñun loolu lañ doon bàyyi xel toog di déglu ba yàgg Salif Sall faat xalaas dégg nga Ndiaye moo faatu waaw problème ba gën naa lëj nag Salif Guèye mais nag bi balaa Salif génn àdduna tribunal àtte na pare. moom lañ daanoon deux ans yi. waaw tribunal àtte na pare. ñu daan ko deux ans. alamaan ko. léegi ñii jàpp nañu coow lu jeex na. damaa toog seen kër toog toog seen kër. abaa ñii toog nañu benn instant rek ñu waat leen fi mu toll nii benn expulsion moo ne xaar instant bii nii. bi. premier dossier bi ñu njëkkoon dugal fekk adamante ba réeroon. Mhm. ba ñu ñëwoon génnee leen. boobu lañ déclenché pour topp leen. mais yoon waxagul. yoon waxagul yónnee nañ leen kii nu ngi wax de. sommation sommation. sommation pour ñu génn waaw. te ñoom gisuñoo gisante wuñ ak ay doomu saalif gisante wuñ ak jabaru saalif nee daal avocat Salif daal moo yëngalaat dossier bi ki nga xam ne moom moo ci nekkoon noonu ba Salif génn àdduna. Mm-hmm. moom moo ko continuer. ñu déglu déglu. faatoo ci diggante bi nag. bi ko tribunal daane ñaari at kaso alamaan ko est-ce que peine boobu tëdd na ko wala tëdd ko. non peine boobu Salif Sall tëdd ko xamuñu nag lu tax tëdd na ko wala tëdd ko mais en tout cas daal tëdd ko. Salif non tëdd ko c'est sûr tëdd ko man. ah non ah dégguma ci sursis de. deux ans ferme daal laa déggoon ak alamaan. Hmm. man moom laa déggoon mais sursis bi moom dégguma ko. loolu laa parce que man audience bi maa ngi fa woon. maa ngi toog léegi nag bi loolu amee. ñu ñu toog di déglu ci loolu dégguñu ci loolu dara Salif Sall faatu après nag léegi awakaam bi moom daa daal di profité ci loolu dem jëliwaat dossier bu njëkk ba dossier ba ñu àttee woon génn ñu ndeket tamit boobu ñun xamuñu ci dara def nañ benn expert expertise kër gi ni kër gi bi ñu ko avalier war naa mën a nekk daal ay 10 millions après léegi defal ñu benn segu 10 millions ni daal loolu lañ leen di jox pour ngeen génn kër gi loolu nag jaaxal ñu lool quoi. bâtiment bi ngeen tabax ci terrain bi la ñu évalué a à dix millions. Ah, voilà bâtiment bi ñu tabax ci kër gi lañ évalué à dix millions mais loolu soo ko seetee sax da xam ni évalué boobu sax dafa jaaru ci yoon parce que laaju ñuy suñu xalaat teewuñu ci atte yooyu ñu doon wax noonu teewuñu ci atte boobu ñu nga xam ci la ñu génnee woon ba pare ñu évalué suñu bâtiment mais bâtiment boo xamee ni kër goo xamee ni sii nii mais impôt domaine sax laa lay expliqué impôt domaine paduwaa nan la ko nit mën a ñëwee rek maasale ab terrain dëkk fi comme ça quoi loolu loolu moo jëkk nekk mënta nekk loolu loolu moom mënul mu nekkul te encore tamit expert boobu bi ñu expertisé kër gi kër goo xam ne mu ngi nekk sept chambre salle garage su oto mu nekkoon ca 1994 boobu ñu koy tabax terrasse boobu noonu ñu fexe di ko toj par benn néeg ñaari néeg ba terrasse waat ko ba mu pare kooku nan lañ koy awalee ci deux millions ci ci 10 millions mais loolu moo jëkkut a jaaru réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk saalif ëppale wuñ ko fi ëppale wuñ ko fi mais nag nit ñi leen di atte ñu leen teg ci dëgg di leen teg ci yoon dan ni buur xamul waxi kese ay këyit la xam man nag li may wax dafa leer ay këyit yu leer nañ laa yor plan bi nga xam mooy plan impôt domaine Padois fi kër gi situé wu lépp maa ngeeg moom maa ngeeg eh, këyit yi saalif bi doon tout ça maa ngeeg moom ay këyit laa wane yu leer nañ kër gi tamit lenn da cee amaat mais bu fekkee ni si ni pa Momar Aram Thioune mi ngi dund colonel Momar Aram Thioune mi ngi dund pa Amadou Diallo di dund mais sawaay loolu warul mën a leen dégg nga Ndiaye. bu baax a baax naa te xam naa ne ñiy déglu dégg nañu. te xam nga xam nga problème bii nii. Mhm. premier génnee ba. Mhm. dañ ko jàlle woon fii. ah ñu maa ngi biñ ko fi jàllalee après coow la ci la xawoon a sedd. Mhm. ba paa bi sant jàll xam ñu ngi ko ciy tudd nii paa bi déggoon turam ci rajo bi paa bi dem ba ca kër ga. dem ba foofu laaj leen ñu expliqué ko mun leen lii mënta nekk ndax man la Salif jaay kër gi man maa ko jaay colonel Thioune colonel Thioune moo leen ko jaay. donc moom bi kër gi jógee ci ay loxoom dafa yàgg léegi nag coow li coow li mooy ñii seen bakkan lañu teg ci kër gi. waa kër gi. waaw seen bakkan lañu ci teg ak devant mu laal yónnee noonu Ndiaye. bi ñu defoon depuis 1994 seen bakkan lañ nee ku fi ñëw di leen génnee da leen di rey ba ñu jeex. vingt bis mooy dañu évaluer kër gi ci dix million waaw fu kër gi nekk. pas droit. mais ki ko évaluer moom xanaa. non bâtiment bi bâtiment bi. bâtiment pas suuf si bâtiment bi pas suuf si bâtiment bi quoi l'évalué à dix millions ok te nag te nag Ndiaye lii genre problème bii nii nga xamante ni buñ ci jógul léegi musiba dina ci am moo am conk gii loolu tamit dina ci ñëw boobu moom moo gën a doy waar yëpp mais xam nga luñ ci mën a jàngee rek waaw euh, déjà man su ma bokkoon ci famille bi mhm. damay topp yoon rek mhm. parce que yoon moo ko mën a lijjanti xam nga dossier bi gën naa lëj bi nga xamante ne jii ki ci bokkoon di ci élément clé faatu na mhm. dossier moom gën naa lëj waaw waaye nag da ngay topp yoon nag lu la yoon laaj ci kayit nga fexe koo indi mhm. wut ñu xam maanaam justice ak ni muy doxee mhm. ñu défendre la ko nee na ci ay waxam ak de vente original ba xam nga bii ne bi ma la yónnee dañ ko photocopier waaw ñu ngi ko bàyyi ci bureau juge huitième cabinet man de benn étude rek laa ci am mooy paa bi ko njëkkoon moom waaw waaw ba jox Salif ne ko ñee ñoo ñee ñoo am kii après moom dafa faatu. Mm-hmm. ñi ci nekk di xëccoog yooyu nañu xam ni ñoom euh, bis dina ñëw ñu faatu. Mm-hmm. xam nga tax ma gën a insisté ci jàll li Ndiaye. Ah, waaw donc amul leneen lu waral rek. mooy tax ñu ci rey seen bopp wallaahi waaye nag dafa neexul Aba. Mm-hmm. jamonoom ni mu méttee. nga rey sa bopp ba taxawal dara. mun naa laa rëcc ci Mali foro bañkat bu ne da koy bañ loolu dafa am. mais ci gàttal Sénégal nañuy fonk këyit. Mhm. Sénégal ngay gis ku la jaay nga ne ko noo jarul facture. Ah, boo dee muy alali sàcc la. xam nga lu tax njaay li gën a. xoolal Sénégal li ma lay wax fii nii bari na ñuy jënd ka jaay da ngay ñëw ñu ne la jarul jarul facture. Sénégal lañ lay jaay ji la laaj ndax ma defal la facture. waaw njaay loolu confiance mën na ko def. waaye déedéet waaye mais xoolal fi mujj tey. dëgg la de. xoolal fi mujj tey ki jël kër jaay ko nit kooku jaay keneen kooku am ñu mu ko jaay jamono dox ba moom mu xam ne mi ngi këyit yi te ñee yoruñu këyit yi mu dem di réclamer kër gi njott bu rafet njaay xanaa xamoo njott bu rafet rek mooy tax Sénégal foog ni ak moom mën naa dóor Angleterre <laughs> njott bu rafet rek ko koy def njaay déedéet <laughs> njortu bu rafet rekk mën loolu. mooy in indi nit ci yenn problème yoo xam ni. gis ma sama maam ba dugg ci loo mën xam nga lu mu la wax. Hmm. ay réew du làng te néewi siis. <laughs> loolu looloo ñu dal ci coupe du monde bi. xam nga Ndiaye loolu moo tax xalaas gi daanoogul. Hmm. Eh. man ci man sama xalaat man. Hmm. famille wu muy ay doomam ak soxnaam. yéeguñu problème bii. parce que waa kër gi amul benn yoon bu fa doomu ñoom Salif deme wala jabaram. kon avocat loolu est-ce que maanaam même bu ñu ko yëgee est que xam nañ nu mu demee. Eh, est que wax nañ effectivement nu mu demee waaj daanelagul de. ñu déglu déglu. parce que ñooñu daa jaar ci ñoom te effectivement bi nga xamee ni génne bu njëkk boobu am na pas Amadou Diallo boobu jëkkoon a jënd terrain bi ci moom ñu ngi ko déggee daf dañ ko leen ko tudd ci xalaas lañ ko tuddoon léegi Pa Amadou Diallo daal di tëb parce que ay njabootam ko li ñuy dégg ci yow benn terrain bu nekk Patte d'Oie benn kër bu nekk Patte d'Oie loolu nan la a nekk lu mu la ñu fa daal ni mais lu xew fii ñu expliqué parce que dafa yaakaar dundatul ci àdduna parce que terrain bi man maa ko jënd ci moom jaayaat ko colonel Momar Aram Thioune Momar Aram Thioune jaay leen ko yéen ci kanam Salif kon terrain ba mu génnee ci loo xam sax dafa yàgg te ñii ay njaboot lan ay xele nga ñëw def leen façon bi lii dafa ñaaw Pa Amadou Diallo taxawaay boobu la taxaw ñëw seere affaire boobu taxaw te Pa Amadou Diallo ba léegi mi ngi dund maintenant léegi léegi lan mooy problème bi léegi Salif génn àdduna tribunal joxoon na leen dëgg avant muy génn àdduna léegi dafa génn àdduna ay njabootam attaqué leen voilà léegi nag Salif dafa génn dafa génn àdduna avocat Salif bi nag dem sarse njabootu saalif pour ñoom njabootu Salif attaque nu léegi nag Salif comme dafa faatu pénal toppatu ko mais ak njabootam nag léegi alors ñoom moom ñun dina topp tey ba sëkkamtal lu bëgg noo génne suñu kër mais loolu nag loolu leen mënta dégg fenn loolu leen mënta nangu léegi nag boo gisee ma ñëw di ko wax pour nit ñi dégg ko mooy may interpeller ministre de la justice di di interpeller euh, directeur impôt domaine ñu dégg sama wax ji xam ko xam ni terrain bi ñu fasen yéen woonoo ca kër ga parce que dañ ko tabax dëkk fa moom ko ci ay këyit seega nag ñoom la problème la mooy mutation bi amul tax ñoom ñu bëgg a profité ci suñu kaw génn ñu si foofu ñun ñu dem di taxawaalu ji ñoom ñu dem alors dëkk ci seen kër loolu teguwul fenn parce que dëkk bi dafa am yoon nani nani att nit ñi ci yoon di leen teg ci dëgg ku nekkul ci dëgg ñun ko teguwoo ci dëgg parce que ñun suñ ko moomu loon duñ ci jéem dara wax duñ ko ci def ñun ñu gëm yàlla lanu ñun yar lanu ñu tegu ci aw yoon lan suñu ñàkk nag lan ko lan ko lan ko suñu parent bàyyil ñu jënd ko dëkk fa ba léegi kon mënuñu xëy bëgg noo gën a ci ay tappale ak waxi caaxaan li nga xam ne nag moom lañ ci dese mooy kër gi fas yéene wuñ koo génne tey façon yéene wuñ koo génn suba te li ci am mooy ñu dégg sama wax ji xam ni kër gi daal moom mi ngi paduwaa heure bu ñu ñëwee koo génn nan ñu ray ci biir kër gi mu jeex kër gi ñu jël ko mais tant loolu amul benn personne sax bu fa desoon nan ko ray ci kër gi soog koo jël mais taxawuñ pour génn de parce que ko moom yor ay këyit yu leer nañ léegi yéen moment bi tribunal di àtte di leen jox dëgg ci kaw Salif ak moment bi Salif di génn àdduna est-ce que déggantewaat ngeen ci diggante wala nag gisantewaat ngeen. waaw déggantewaat naa Salif man Salif ni ma dégganteeg moom mooy dafa ma woo téléphone. woo gi ma woo daf ma xamal ni ma saar ma ne ko waaw mu ne ma man dafa am problème boo xam dama cee duggoon muy seen problème kër googu nga xam seen yaayee ko moom ma ne ko waaw mu ma dama cee def loo xam def naa ko pa parce que actuellement nii damaa feebar léegi nag li ma bëggoon moo doon nga woo sa frère boobu nga xam moom nga daan àndal di ñëw di ma fekk impôt domaine léegi bu ngeen ñëwee ñu toog waxtaan ñu jël këyit yi ñu niite ko parce que man def naa loo xam xam naa ne erreur man léegi nag bi ma loolu ni ma woo sa frère bi nag nu mu gën a gaawee ngeen waxtaan ngeen ñëw ñu xool nan la ñuy tasee pour waxtaan ci loolu ma woo sama frère wax ko ko il paraît que nag ci semaine boobu muy jeudi bi mu ma ko waxee avant jeudi bi desiwaat Salif moom gaañu na waaw foofu daal lan jamoon maak Salif moom loolu lan mujjee wax moom d'accord léegi est-ce que famille Salif bi leen muy doomam yi que ñoom yëg nañu historique gu kër gi problème bi ci am yëpp diggante ca njaay ma ak fi mu jaar ba léegi est-ce que ñoom euh, yëg nañu loolu man nag li ma jàpp mooy waa kër saalif Sall moom yëguñu ko parce que li tax man la yëguñu ko mooy bu ñu xamoon njaay mi ba kër gi fi mu jaar ba fi mu agsi tey ji ñoom duñu leen dugal ci lii ñu leen dugal dégg nga. am na ñoom nañ dem ci ñooñu également pour xam. dem ci njaboot Salif la famille Salif xam nañu est-ce que am nañ information yi sax ni que ñoom am nañu ay yoon ay seen suuf bu nekk ci yoon ak yooyu. surtout loolu surtout loolu à part réew mi léegi bul wetti dara bul wetti déggoo mën la njaay. Mm-hmm. yaa ngi gis fan yëpp am na benn daam buy jaabate fii di gis nga problème bi bu ko gën a garaaw luy dund fii ci conk bi fii ak benn naaru pakistanais. jëndum kër goo xamante ni yow jën nga ko à deux cent quelques millions fay goo ci lu mat quarante millions naat ba muté na kër ga par force commencé naa toj di def lu ko neex tribunal dañ koy condamné mu génn def lu ko neex. déet loolu la femme bi wax. xam nga réew mi aussi réewu yoon la. waaw moo xam ne dafa waaw ba meggale waaw kër ba da nga koy muté dafa am document yooyu joxe. waaw document yooyu nit mënu koo fabriquer. waaw dama def ab hmm. naa jox kii di nga xool. waaw ah, d'accord ak ak kii yi nga xamante ne notaire yi ñoo ko bind ak maanaam bu demee tribunal ne fay na fay na notaire diw. Mhm. notaire ba bind ne ko ne fayuma dara weddi yëpp naa jokkoo daal nga xool. ah mais léegi kon loolu la la koy kooku la la ko yoon wax. dégg ma yoon la la ko wax. première fois bi mu tojee non seulement yoon da koo daan da koo daan. Euh, un mois de prison ferme. pakistanais bi la daan waaw. Mhm. ba pare condamné ko pour mu fay vingt cinq millions ñaari nit yoo xam ne dafa toj seen magasin. di nga wax ji fayu leen te dul pen ba ah di nga wax ji naa naa jox njaay PV yi mi mi ngi fi toll na mat na ton non li ngay wax ni moom mënul nekk. te li ma lay wax nii xool hmm? su ma la waxoon mën naa nekk non non non li muy wax nii mënul nekk. abaa réew mu am yoon ñu teg nit ay daan. mu bañ a fay yooyu daan. ba noppi continuer di defaat lu ko neex. loolu amul ci réew mi bokk. lu ko tax a nekk lu ko tee nekk la ñuy seet waaye. mën naa te ma wax la ñaari daan. xam nga du ci toj ba dañ ko ca daan après mu demaat fa. femme bi mu xeex ak doomu femme bi dóor ko ñu daal encore ci coups et blessures volontaires ba tey même naar bi amande waat ko encore ba tey fayul te ma koy continuer def la muy def. non man sax lu mu bëgg naan ay ba tey même naar bi ba tey même waa ji mais man ni réew mi ñu nekk nii nit mënu fee def naka su dul noonu ñu teg ko ay daan mu bañ a fay daan demaat defaat dara. ñu tegaat ko ay daan mu bañ a fayaat yooyu daan ba noppi moom di bëgg di continuer ba tey. dinaa la wax ñaari mbir Aba réew ñu nekk am na loo xam ne buñ ko waxee. boo ko waxee nekk waxkat baa ñu noppi rek. waaw mais ñun nañuy ñi ñëw ci xalaas. Mm-hmm. am problème bu leen jaaxal bëgg nit ñi dégg ko buñ ca mënee faj faj ko ñeen ñi di expliquer seeni problème ngir bëgg nit ñi jànge ci. Mm-hmm. ñun lu ñu war rek mooy lu mën a jàll ñu jàllale ko. waaw ah. Ndiaye je loolu daal loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy li am solo. Ah. Euh, Sénégal nag dafa naqaree lijjanti. <laughs> Sénégal nga yor sa oto di dawal gis foo war a gaare ñu ne doo fi gaare te foofa kenn gaare ko <laughs> wala nga fay ay biteel lañ la fay tegal <laughs> fii dafa am ko fi war a gaare waaw te woon na ko a gaare ma ngay soog a tëdd yi nelaw te Njaay ngay gis koo xam ne yow nga yor sa oto xoolal di wëndeelu yow yàlla boo yor carburant bu tuuti da nga wëndeelu ba mu jeex ci yoon doo gis foo gaare te Njaay xoola ay garage nga fay gaare noonu pour lijjanti benn affaire ndaw ñëwaat dem dugg génn duñ la ko may ah, dugg génn da ngay gis borom kër gu tabax këram laal 3 mètres mbaa 4 mètres ca mbedd ma nga xam ni moomu ca dara. waaw boo ñëwee ñu teg la tegal dafay butéel. teg fa bamba ñu miire ko sax. waaw teg fa ay benn pont. ne la fii kenn fi jaar li nga xawal léegi. ba pare bind la fa interdit de stationner. waxoo dëgg. beneen affaire moom laa wax moom mi fa def loolu. beneen affaire Aba beneen affaire comme ñu ngi ci gaare yi am na aussi lu may gis Sénégal. Mhm. lekk àq la. waaw mooy ñiy sabowaate. d'accord naa nit bu gaaree fu mu warta gaare mm-hmm. nga sabo ko mu dem fay parce que dana tax ëllëg si bi du ko def mais duñ la tegal panneau buy wane ne waroo fee gaare muy mm-hmm. Mm-hmm. ñaar mooy ñii sabo dañuy mel ne ñu làqatu toog di la xaar nga taxaw yow booy wane ginnaaw ñu lay sabo li gën a rafet kay mooy bala ngay sabo nit ki bu gaaree ba wàcc ne fii bu fi gaare parce que boo fi gaaree dañ lay sabo bu dëgëree bopp tenir la tête boo la wane ginnaaw nga sabo ko mais ñoom dañuy làqatu mel ne ay coy quoi yàkkamti nañu nga wàcc dañuy ñaan sax yow ba yàlla boo leen gis yàkkamti nañu nga wàcc da ngay tourné ñu saboolu mais loolu àq la commune bu ci bëgg a dépendre ngir ne da ngay développé wu wala bu ci bëgg a ngir ne dangay am dara xamal ne yaa ngi lekk àq muy benn hmm. ñi ñuy liggéeyloo ñuy wër di sabowaate nañ leen leeral leeralal leen xamal leen ne leen hmm. booy saboo nit ki benn mooy bu ñëwee gaare bala nga koy saboo amal élégance bu toll ni ñëw ne ko fii waroo fee boo fi gaare dinañ la sabo hmm. ku fi gaare nga sabo ko problème am la hmm. te fi nga xam ne dañuy bañ ñu fi gaare ñu fay teg ay panneaux yuy wane ne fii waru ñu fee gaare Ndiaye xam nga la mooy problème réew mi hmm. <coughs> man dama ci am benn problème mais ñoom réew hmm. man dama am problème article man dama ma xàmmee a def mais réew mi dañu am problème verbe Ndiaye duñ verbaliser maanaam nit def dara nga wax ak nga verbaliser ko nga ñëw ni ko bul def lii nii nga war def amul ci réew mi maanaam sanction bi mooy njëkk balaa ñu ngay dem fenn ñu naan la non waroo woon def léegi dañ lay na ba pare te alors que nit ki mën na bañ a xam benn affaire mhm. wala mu bañ am information mu def ko nga ñëw ne ko lii de ñu ko def wala nangam ak sàngam danga koy apprendre bu subaa moom dootu ko defati ah, parce que xam ko woon waa ji yaboon i carton bu buntu pale yor sareetam yabi di kocc ko ci romb buntu pale dootu ko defati te keneen du ko defati ngaa dawal fas ba ci buntu pale bi fas <laughs> am envie Ndiaye Ndiaye réew mi tam nañ nañ anticiper Ndiaye. loolu rafetul Ndiaye ah, réew mi nañ anticiper. sa xam nga ñu ngi doon wax naan ay waxu parking souterrain fii euh, à Dakar. Mhm. yow de Ndiaye centre ville nga xam te ne foo la administration bi yëpp nekk lépp looy wër dakaar ville nga jëm. Mhm. boo ñëwee fii amoo foo gaar nooy def. Hmm, nga delluwaat. ah mais problème ba léegi nag nit mu ñu yore oto yow abaa faa ngay oto faa nga dugg ville faa nga dem ci ambassade yi dem ci banque yi dem ci ministère yi fooy gaare foo war a gaar nit taxaw ne la fii nga fay téeméer wala 1000 ñoo xam dañuy parking amul benn organisation bu ñu def même bu dee parking payant ñu def benn parking souterrain bu ngand nit ñi bu ñu ñëwee fa bu ñu fay ñu fay comme aéroport wala feneen ak feneen. Hmm. ndax nga dëgg de. dëgg la bu ñu anticipé rue 37 angle 22 Laye Diop nee dafa ku fa benn waay boo xam dañu fàtte ci moom ay montre yàgg na benn mbuusu montre ëpp na ay 20 montre déclaré woon nañ ko fi borom montre yi bu fekkente ni sachet la daal ba am ay montre bu fekkente mi ngi dégg fàtte woon ko ci Médina rue 37 angle mu woote ci 77 150 17 17. jël ay montaram. àdduna changé na. waaw bu njóobeen yi for di delloo. ah tamit Ndiaye réew mi léegi Ndiaye. tey Lions yi dañuy ñëw bu ñu ñëwee président def leen ni yóbbu au palais pour kii leen sant leen gërëm leen. waa méritoon na ah, waaw mais foofu it problème ngi parce que ñii ngi naan aéroport Blaise Diagne la ñuy wàcc ñi naan aéroport militaire bu bu bu bu bu Yoff. Mhm. il faut ñu wax ah, ñu. lu ñu fan la aussi pour ñu fay dem. lenn lenn daal wóor ci information yi mu wóor yu wóor te wóor mooy ci ba aéroport moom nañ ci wàcc